L'air L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين amma Bab mbokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk ragal yàlla mooy ngën ji yóbbal ci dundub àdduna bi mooy ngën ji yóbbal itam ëllëg ci bisu yowmal qiyaam mbokki jullit yi ñu xam ne diine ji wér fa suñu boroom tabaraka wa taala jenn diine la mooy al Islam waaye lislaam itam nag du mën a wér ci nit ki lu dul mu ànd ak rafetal سونو بوروم واخنا ني من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه كو خامنا جيبلنا بوبام سونو تبارك وتعالى تي موي مو دوجو سي الاسلام اندك رافتال تي موي ديبلكو اك سنه يونتبي صلى الله عليه واله وسلم بانتا يوك بانتا واني نينا كوكه اك فايام ماغا فا سونو بوروم تبارك وتعالى te du am lu muy ragal te du am itam lu muy tiisoo buy génn àdduna borom bi dellu wax ne wa man axsanu diinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muxsinun wattabaa millata ibrahima wattaxasa allahu ibrahima xalila suñu borom ne amul kenn ku gën a rafet diine koo xam ne jébbal na boppam suñu borom tabaraka wa andak rafetal jebalin wa top diina ji nga xamne ci la ibrahim alayhi salaam nekkoon te mooy lislaam muy diina ji sori lol bokale ibrahim moomu nga xamne suñu borom jàppe won nako ab xarit borom bi del wax ne wa yuslim wajhahu ila allah wa huwa muxsinun faqad istamsaka bil urwati alwusqa wa ila allahi aqibatu al umur ku jébbal boppam jébbal léppam suñu borom tabaraka taala te mooy mu dugg ci lislaam ànd ak rafetal kooke suñu borom nee na jàpp na ci buum gu dëgër nañ xam mbir yépp ci suñu borom tabaraka taala lay mujj bokki julit yi xerug jaam bi ci rafetug lislaamam ak wérug ngëm yàllaam tegtal la bu leer firnde la ju ci ne kii ku xellu la te itam yoon wi mu jaar wu jub te itam ku am tawfiix bu mat sëkk la diine yi ab jullit mooy tegtalam mooy li koy wammat di ko jëme ci ak taxe ci dunduk addunaam bii waaye moo koy jëme itam ci ak taxe ak yëkkatikuk daraja ci àllaaxira ci diineem ci lay mucc ci cànkute ci lay sore mbooleem yoon yi nga xam ne yoon yi texee di la ak sóobuwaay yi nga xam ne ku ca sóobu da ngay sooy da ngay perte yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne dafa xér lool ci lépp luy jariñ aw xeetam am ci ñoom ak ñeewant am ci ñoom yërmande tegtale na ay teggin yoo xam ne yu mat sëkk la jikko joo xam ju tedd la joo xam ne am sa lislaam da ciy rafete te da nga ci jot daraja bu kawe ci ngërëmul suñu borom tabaraka taala jële nañ ci abi an mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne min xusni islaami lmari tarkuhu ma la na ci rafetuk njullitug cam si muy mu bàyyi lépp loo xam ne soxalu ko lépp loo xam ne yooneem nekku ci lépp loo xam ne njariñam nekku ci hadis bi wax la joo xam ne ju boole la ay maanaa yu mag doonte baat yi lu néewu la ndax ku lislaamam rafet dana bàyyi lépp loo xam ne yitteelu ko lépp loo xam ne soxalu ko lépp loo xam ne njariñam nekku ca moo xam ay wax la wala ay jëf la ndax lislaam dafay laaj jëfe yu war yi bàyyi yu xaram yi jaam bi su lislaam rafetee lool day waral ci moom mu bàyyi yu xaraam yi ak yu lënt yi ak yu ñu sib ak sax yi nga xam ne yu dagan la waaye aajoom yëggu ci aajo wowu ko loolu lépp yitteelul ab jullit su fekkente ne lislaamam mat na egg na ci daraja yi rafetal rafetal gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leeral na lan mooy rafetal ci bi nga radiallahu anhu moo ko soloo ñu siiwoo ko ci hadisu jibril muy jibril bi muy laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan mooy lislaam lan mooy iman lan mooy ihsaan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko ihsaan te mooy rafetal mooy nga jaamu sa boroom ba koy gis wala soo ko gisutit nga gëm am yaqiin ci ne suñu borom tabaraka wa taala moom mi ngi lay gis koo xam ne jaamoo na suñu borom tabaraka wa taala ci teewalu jege gu mu jege boroomam wala jege gu ko boroomam jege kookee lislaamam day rafet day war bu boobaa nag bàyyi lépp loo xam ne soxalu ko yitteelu ko soxlawoo yi nga xam ne moo ko yitteel ci pas-pas bu wér ngëm yàlla gu mat ay jëf yu yiw yu baax te mooy yu dëppoog sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sàkku li nga xam ne nag lu mu mënta ñàkk la ci ab dundam yi nga xam ne su ko amul ab dundam du yomb ci yu dagan yi mu di ko sàkku safaanu loola nag mooy koo xam ne sànq na waxtu yu seer yi nga xam ne moom la amoon fii ci àdduna ci di soxla woo loo xam ne yoonam nekku ca Lo xam ne yitteelu ko njariñam nekku ca mu ne ca loola ba bàyyi la koy amal njariñ sàggane ko kookee perte na perte ne gu bir la bokk na ci soxla woog nit ki ci loo xam ne yoonam nekku ca mooy ñàkk a sàmm aw làmmiñ ci waxi neen ak di topp lo xam ne njariñ nekkul ci topp ko ci xibaar nit ñi ak seeni mbir ak seeni yitte foo toll di laajte mbiri nit ñi ak fu ñu toll ci seeni mbir te loola amul benn jubluwaayu sharia boo xam ne moo tax nga di ko laaj jubluwoo ca lu mooy rek bëgg a xam seen mbir ya nga xam ne seen mbiri bopp la seen mbir ya nga xam ne yu nëbbu la ci ñoom te yitteelu la bokk na ci itam ci yittewoo nit ki bu yittewoo lu yoonam nekkut muy wax ci loo xam ne xamu loo xam ne xereñewu te sax nekkul ne dañoo sàkku ci moom mu wax ca wala mu feeñal ca xalaatam waaye lam ci jublu rek mooy jotaay bu mu toog bëgg jiite jotaay ba jotaay bu mu toog bëgg nit ñëpp moom la ñuy xool moom la ñuy bàyyi xel tax lu nekk mu dugg ca lu mu xam ak lu mu xamut loola mën na ko yóbbe sax ci di nuur ci loo xam ne sax dëgalul woon mu di ca wax mooy di tasaare wax ju ñaaw di tasaare ay demaleeke fekkale ay rumeur di tasaale wax ju dul dëgg di tasaare xibaar yoo xam ne yu ñu sos la ñooñee ñi dugg safara ba ñuy lim la leen fa dugal lu mel noonu bokk na ca ndax nee nañ wakkun naa na xóodu ma al alxaidin dañ doon xuus ci wax rek ak lépp loo xam nit ñaa nga ca rek lu ñu xam ak lu ñu xamul ñu ànd ca ak ñoom bokk na ci liy dimbali nit ki nag ci mu bàyyi loo xam ne soxalu ko yoonam nekku ca moo xam ay wax la wala ay jëf la bu fàttalikoo ne yi ko war moo gën a bari li mu am ci ay wax fatlikou ne itam dundem bi muy dund lu gàtt la li ci war lépp sax boy set xawu ci xaj kon nak naka la ci dugale lo xamne mom moom neen la xal la soxalu ko yitel ko bu fatlikou itam ne kenn ku nek sa dund bii danañ la laaj ci loko jexal jeexal ne mu dikke ci hadith ba jële ci abi barsata al aslami mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne yowmal khiyam kenn du seqi ab jéego jóge fa nga taxaw lu dul ne dañ la laaj ñeenti mbir mooy dund bi nga doon dund ci loo ko jeexal li nga xamoon loo ca jëf alal ji nga yoroon foo ko jële woon noo defoon ba fàggu ko ba nga ko fàggoo ba noppi ci fan nga ko dundulee fan nga ko dépensé danañ ko laaj itam aw yaramam ci lan la ko rappal ndax ku fi yàgg saw yaram dana mujj rapp da nga mujj màggat lépp loo xam ne itam mu fàttaliku ne itam lépp loo xam ne wax na ko wala jëf na ko loolee bind nañ ko ci téeréem ci ëllëg danañ ko fay loola li ko borom bi waxee ne wa kullu shay'in fa'aluhu fi subu faal wa kullu shay'in fa'aluhu fi subu nee na lépp loo xam ne def nañ ko rek mi ngi ci téere bi wa kullu saxiirin wa kabirin mustafa lépp lu ndaw ak lu mag moo xam wax la wala jëf la lépp bidd nañ ko am maa nag bëgg fés bëgg ràññiku bëgg nit ñi di la bàyyi xel di la xool loolu jubluwaay la boo xam ne jubluwaay bu baax jubluwaay bu ñu ŋàññi la jikko la joo xam ne jikkoy ndëggte la képp koo xam ne nattoo nañ ko mu yor jikko ju mel noonu du ca jële lu may sànje bu jóge ci suñu borom tabaraka taala ak nit ñu baax ñi ko julli dañu ragal suñu borom tabaraka taala te di roy tànneef yi nga xam ne ñooy jaam yi suñu borom tabaraka wa taala gërëm te bokk na ci seeni melokaan bu ñu déggee waxi neen waxi caaxaan wax ju amul njariñ wax ju amul benn sukkandikukaay aaradu anhu dañ koy dumóoyu duñ ca ànd duñ ca bokk duñ ko sax déglu waaye suñu rombee kuy jëf-jëf joo xam ne itam jëfi neen la jëfi caaxaan la dañuy romb rek jàll wa ida marru bi marru kirama ñooñu la borom bi tabaraka wa taala wax ne ñoo ñoo gindiku ñooñu la yàlla gindi ulaika allasina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ñooñu mel noonu ñooy borom xel yi dëgg dëgg dëgg duñu ñu seen temps seen waxtu ci lu dul lu am njariñ ndaxte kat temps bi moom benn yoon rek nga ko am te borom baa ngi wax ne yawma yatazakkaru l insan yawma isin yatazakkaru l insan wa anna lahu zikra yaqulu ya laytani qaddamtu li xayaati nee na bu keroogee ba jahannama teew wa ji a yawma isin bi jahannam yawma isin yatazakkarul insaan boobaa doomu aadama dana fàttalikuwaat na mu nekke woon ci àdduna ak la nga xam ne bu ko jëfoon tey jahannama nii dana ci mucc mu ne fàttali googu muy fàttaliku ci waxtu woowu nag lan la koy amal njariñ wa anna lahu zikra mu naan aka neexoon ma jiitaloon sama dund bi ma doon dund ci àdduna ma jiitaloon ci yiw woo xam ne tey dana dox sama digganteeg mbugal bokki jullit yi ku am xel koo xam ne am na ngëm yàlla gu wér ne dana dajeeg boroomam kooku daa war a jublu ci mbiri boppam ndax foofa kat bopp sa bopp la yawma taati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha foofa benn bakkan bu nekk day ñëw di dàggil boppam di layil boppam li kulli mri in minhum yawma izin sha'nun yughni kenn ku nekk am nga fa loolu doy sëkk kon nag fii ci àdduna itam sa mbiri bopp moo war a jiitu ci li la yitteel li lay yitteel ci mbir mbiri nit ñi sax mooy lu lay may aw yiw ci ñoom jàngal leen wala laay biir leen wala dimbalanteeg ñoom loola aw yiw nga cay fàggu waaye seen mbir ya xam ne moom sa yoon nekku ca mën naa am boo ca duggee sax bakkaar nga cay jële yooyu nit na ko moytu sàmm aw làmmiñam xool jamonoom ji muy dund xam ne lu wëlóore la ci moom moom la am te lu ci jàll jàll na te benn yoon lay doon jàpp ne ay waxam ciy jëfam la bokk képp koo xam ne jàppee nga ne say wax ci say jëf la bokk say wax dana néew ci lu dul lu am njariñ rek ndax wax dafa yomb lool wax a wax ba noppi nga ne dama doon wax rek dama doon kaf rek dama doon nax rek loolu jàpp ne wax bokk na ci liñ lay rek leel bu ëllëgee ci jëf la bokk fa may yaamal misqaala jooju sarratin xayran yara loolee wax ca la bokk ndax wax jaamu yàlla yu bari wax la jàng alquran wax la booy julli ay wax a ngi ci biir jàngale boo koy def wax la ni lépp suñu borom tabaraka wa taala daf koy fay bu rafetee waaye naka noonu itam bu ñaawee itam nag moom itam jaam bi day dajeeg ak payam moo tax li gën a bari ci li gën a jublu ci wax wala dugg ci lu sa yoon nekkut mooy sàmm aw làmmiñ ci waxi neen ak waxi caaxaan ndax doy na sëkk rek lor ju nekk ci wax lu sa yoon nekkut wala di ko jëf lim lay xañ aw yiw woo xam ne mënoon nga koo wax wala mënoon nga koo jëf loo xam ne sa daraja dana ci yëkkatiku da nga ci tedde sa dund dana ci teeye sa mujj dana ci rafet ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala husnul khatima allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad ورد allahuma an xulafaihi al arba wa an jamii ashaabihi وسلم wa sallama